fi daje woon euh, ci ndigalu sunuy kilifa di ci jiital Alioune Sarr le ministre du tourisme et des transports aériens euh, gannaaw bi nga xamee ne lëkkaloo nañ ci jamono bu yàgg ak euh, le le l'administrateur du du du monument de la Renaissance on a ñu tënk benn benn benn benn convention boo xam ne dañuy jéem a pour xool naka la ñuy gën a ñoŋalee liggéey bi ci wàllu. patrimoine ak culture bi nga xam ne ci la euh, monument bi nekk mais aussi ci wàllu tourisme ñu ñu profité ci nag inauguré li nga xam ne mooy point d' information touristique bi ñu installé fii mu doon point d' installation point d' information bi ñu njëkk a installé ci Sénégal fii nag mission bi euh, DC bi wax na ko sànq euh, la partie kii def ci bokk nu mu tuddati statistique ñu xam nombre de touristes yi fii ñëw lan mooy seen préoccupation lan la ñuy dox ko defee ñu am ay chiffres yu wóor su ñuy visiter monument bi ak naka lañ koy visiter beneen pàcc bi tam mooy ñu fexe ba nga xam ne suñ ñëwee bëgg dem feneen ci biir Sénégal mu yombu leen moom ñu leen tegtal ci wàllu sécurité ci wàllu sûreté ci wàllu destination ak touristique feneen fan lañ mun a dem ci Sénégal ak ci Dakar. agence sénégalaise de promotion touristique moom moo ko def fii installé ko fii ci monument de la Renaissance africaine muy mbégte bu rëy bu ñu am di dalal point boobu parce que de départ. boo xamante ne képp ku ñëw Sénégal euh, di touriste wala nga ñëw pour visiter suñu pays donc di nga fi mën a sukkandiku pour xam lan mooy xew ci réew mi ci yenn yenn sites yi maanaam yenn barab yi nga xamante ne mën nga ko euh, visiter muy mbégte bu rëy bu ñu am parce que monument de la Renaissance dafa di site boo xamante ne dafa nekk entre culture tourisme ak patrimoine euh, muy aussi occasion boo xamante ne il faut que ñu profiter ci pour remercier gërëm waa collectivité Lébou du Cap Vert muy les jaraaf les Ndeye Réew et tous les dignitaires de la collectivité parce que ren euh, def nañu visit ci monument bi visite boo xamante ni ñun ñëpp dañ ko rafetlu muy wane ne monument bi euh, ñëpp a ko bokk euh, ab yëf la boo xamante ne Sénégal comprendre na véritablement le sens pour le développement de ce pays là jërë ngeen jëf. Ce point d'information est très utile pour le ministère de la Culture et de la Communication parce que ça permet même temps de relever les statistiques nécessaires pour comprendre et savoir tout ce qui se passe ici au niveau du monument, euh, euh, du monument de la Renaissance africaine, mais aussi pour voir le nombre de touristes, le nombre de personnes euh, qui ont visité ici euh, le monument durant euh, toute une année. Donc vraiment, c'est un point d'information très utile et nous tenons à remercier sincèrement Au nom de M. le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, euh, l'administrateur général du Monument de la Renaissance et les notabilités religieuses et coutumières, je veux nommer le Djaraf euh, Youssoundoy et le Djaraf euh, Alun Gay, n'est-ce pas, pour leur présence ici à cette inauguration du point d'information Euh, ici au monument de la Renaissance.